yéen tailleur yi yéen a moom xibaar bi yéen ñawkat yi yéen a moom bi et frère indi na leen bépp gaamu machine bi ngeen doon xalaat dem jëndi ko extérieur déedéet mi ngi fii ci Sénégal ci Thiam et frère bépp modèle machine à coudre professionnel qualité supérieure nga raw say maas am machine Bernina 217 am nañu machine Corneli A3 machine Grofil Trésur machine piqueuse MPEC machine sulfureuse Rimoldi machine ordinateur Banopi am capacité ou 250 motifs intégrés machine pakistanaise machine spécialiste boutonnerie machine poste bouton Tcham et frère bépp machine bobeg pour ñaw Amnenko. nañ machine pour gros fil wala 217 Amnenko. UBS, ko yu adunabi yu mujjee génn ci et frère ci 33 868 99 54 wala 77 431 32 78 wala 77 653 26 52 Yoné ñu mail ci établissement tcham wala nga xool machine yépp ci suñu site internet www.thiamefrères.com ñi ngi nekk ci numéro 6 jano ak collège Hyacinthe Thiandoum ca Grand Yoff fii ci Ndakaaru bépp machine boo soxla yéen ñawkat yi seen coono jëndi machine bitim réew jeex na lépp luy machine fii la fekk baax

nekk fi sam-sam arema njëngu tale karo ñun dañoo fa ñaw garniture kessa la mais après par la suite après ñu comprendre nañ xam nañ ne ñaw du garniture concours sañse avancé lo nañu yokk na suñu xam-xam ñun ñëpp xam nga amul benn problème amul benn coono bi yoon ma ngi leen indil vax ku na xam na ne ñun africain yi dañoo bëgg vax ma boole ko cuir cuir dafa nekk loo xam ne c'est international cuir moom ku ko talal xam nga ni muy Europe muy Afrique muy Sénégal fépp dañ koy kii mais man man Modou mako indi Sénégal man ma jël cuir di ko ñaw tay baas man Modou deug neexul man la waw xalé xam nañ may kan man la Abdou Diagne Al mubarak Couture nek fi usine Bentel yi ko ñu jóge Kébé bon premier tour bi jangay na ci lu bari parce que franchement bi may dugg ci bi may commencer ci émission bi xawma won réellement émission bi ni muy démé mais bi ma démé ba xol Euh, passage bi euh, jàng naa ci lu bëri. li ma ci doon xaar peut-être gis naa ko bu pare parce que dama doon xaar mu amal ma njëriñ njëriñ bi mooy nee nañ ñu dinañ ñu defal ay formation parce que yaakaar naa xam-xam du doy. suma création mën naa leen ko présenter robe longue la un bras la dama ko travaillé Juventus ak Vax euh, un bras bi Vax laa ko defaree jël naa tam Juventus bi ma dugal ko ci milieu bi travaillé ko ak ay file

premièrement bi di nga gën a xam li ngay liggéey lan la. concours sañse li ma ciy xaar bëri na maa ngi ciy xaar lu bëree bëree bëree bëri surtout damay toog nii di ko rêver sax parfois. parce que ñi ma xamul woon ñu bëri parfois damay dox sax dugg surtout euh, bi ma commencer bokk ci concours sañse bi damay dugg ci biir marché bi rek ñu naan kii gisoon nañ ko télé bi ku koy gis nii surtout ni mu bindoo nii da ngay yaakaar ni tissu la mais vax la. wax laa jël travaillé ko def ko robe bo xamanteni ginnaw bi dafa am un peu de train euh, mu nek euh, longue manche euh mu nek euh, coupe bo xamanteni coupe exceptionnel la mën na dem cocktail mën na dem soirée de gala bo xolé modèle bi rek di nga xamni dina mën a dugg fu ak seddaay bi ni tamit aussi. ma ngi tudd Mira ma ngi nek Liberté 5 ci côté terminus bi tenue africaine la ñu wax.

def ko ak sa avant goût daal pour wan leen ci li li bees li ñu indi ci defe bi. premier tour bi jàngat nañ ci lu bëree bare bëri waaw am na lu mu yokk ci suñu expérience tamit lu bëri bëri bëri bëri. samay projet ci wàllu cadre final bi mooy jël ko en charge concours Sanché yi may xaar ci ñoom moom bëri na waaw ndax gis naa fi ma jëlee ak fi ma yóbbu te am naa tamit leen loo xam ne maa ngi ko ci séentu mais nag xam naa ku ñëpp xam fi nga jëm doo gaaw egg damay buñ bàyyi ba si kanam.

bon mooy ñu def ne man rek xam nga góorgóorlu ñëw lu nice loo xam ne nii boo ko wanee ci télévision bi ñëpp apprécier ñëpp d'accord ci waaw nañ ñëw lu rafet ñëw loo xam ne nii mooy nekk au top bi émission bi jàllee ci télévision bi bi mooy le lendemain dama génn rek xam nga ku ma dajal rek nga ma cuub booy gis naa li nga def ci télé bi cuub booy gis naa li nga def ci télé bi xam nga naa ci sëriñ bu bu bu bu baax modèle bi xam nga man damay faral di yëngatu ci vax bi may ñëw toujours vax rek lay doon bon li tax ma ñëw modèle bi dama gis ni bon war nañu mën a jël vax ñëw ci loo xam ne nii dem mën dem soirée mën dem réception mën dem ngénte xam nga boo gisee coupe bi mel bon voilà da dafay niroo kubu robu jupiri yi robu de affaire yi bon ma jëm ko ñëw ci vax pourquoi papa mën nañ ko ñëw ci vax mën na mën nañ ci ñëw leneen ak leneen may raw bom doole lay ñëwee maa ngi tuddu Baye Sène ñu gën ma xam ci dérange écouteur waaw ma ngi dëkk ci ci Thiaroy la ñëw nak télé caro en face pharmacie Amina dañ daan dag di ñaw rek parce que loolu lañu ñu jàngal mais dégg naa fa loo xamante ni peut-être man daal xam naa daal Mau model bi mo len bëgg présenter til la waaw mais robe la ko ñow nak waaw ah, mako euh mondial la la ko dag ku bu baax ku bu rafet def ci touti gantir parce que tamit li ngeen wax la tamit ma bëgg wañi gant parce que man ñaw bu amul finition bëgguma ko benn instant bi man dama bëgg surprise li ma woyoon rek la bëgg wone wane lu gëna graw fi ni jël ndam li rek indi ko fi bëggal wa Thiaré parce que ñom lay sago man la Ousmane Gueye ñu wah wax Ousou création ma ngi nek Géejawaay première partie ma def am na lu ma si ci lu bari parce que da ngeen da ngeen ñuy ci premier tour bi waaw ba ngeen ñu waxee tim am na ci am na ci gis parce que garniture day bu ñaw bu ñu coupe tim daf neex parce que nañ suñu allah waaw ngi def benn jesner bu noir hmm, bi. ñu def ko parce que noir la comme li wax noir la noir bi xam noir euh, dafa am solo quoi ci parce que day sedd motax ma def designer bu noir génne ko ak fil bu bleu turquoise couleur bu rare la nak parce que bari wul quoi parce couleur bo xamni dafa laté wa lepp ci suñu inspiration rek moo ñu ko jox xeyuñu rek xama xol fu nek diko diko diko ñaw dañu dañu ci tok xalat ci bu baax liggéey ci ay fan yaa dégg parce que ñaw bo xolé di nga xamni ni macha allah liggéey la wa ñu def ko 217 bu normal bu jaar yoon bu set estrasgo ñing koy waj bu baax sax wax deug yalla ci bëpp côté nag bàyyiwuñ dara. ma ngi tudd Mama euh nek kër Malika côté plage bi eh, sama atelier mi ngi tudd mo couture da ci baax des fois ñu def ñu ne ñu jooni day tax suñ xam-xam day gëna yok parce que ñun ay ndaw lañ donc su ñom la ñuy bon c'est normal des fois buñ défé dara ñi critiquer amna ño ñoo ne xamuñu ma woon amna ño ñoo xamuñu sax tailleur la mais concours à grâce à concours ñu bari dinañ xam tay mami bay mi tailleur la bon gis naa d'al daal bu la basse tenue sénégalaise bi jupe la taille basse euh, jupe bi ko di jupe bi ko pli pli devant melni taille basse devant ko kooba bi kanam ji def ko blanc normal daal koy pili këram franchement taille basse bu rafet la bu tubaab bi en plus c'est déjà habillé moo tax defuñ ci gantu yu bu ndaw rek ak rëbëru loxo yi. maa ngi tudd Mamadou ñu may woowee Diop taille basse maa ngi dëkk Thiaroye Tali Karaw. premier tour bi jàng nañ si lu bari parce que si côté culture côté lépp si xamul woon. dinañ ci gis tamit ay modèles yu différents yoo xamante ni chaque jour dina yokk suñu xam-xam pour jàngal waa li may xaar ci concours bi mooy jël ndam li rek man moom xaar ma ci leneen lu loolu ñun ñuy présenté nii mi ngi nekk designer deux tons baat bi ñu ngi ko def baat rond masse bi masse masse body la mu am fermeture ci ci kaw comme baat rond la fermeture bi ci côté bi lañ koy nekk mais fermeture bi mun nga ko bañ a gis m'appelle Abdullah Hatté, je suis styliste modéliste costumier de scène, sorti de l'Institut de couture et de mode de Dakar, ex-École nationale des arts de Dakar. Euh, je suis le premier prix de la euh, francophonie 2015. Voilà, donc je fais partie du, jury concours Sensei, édition 2016. Ma impression du premier tour du concours Sensei, moins que euh, l'idée est pertinente euh, te te lu dañuy wax lu donc aussi nangu aussi le fait que nous beaucoup ci choix au jeu et que. Euh, nous y ci partie qui c'est à améliorer mais amna ci c'est à conserver yi nga xam améliorer côté par exemple candidat

daf la war a jaral nga nga nga sacrifier yu bëri maanaam waroo ko def juste une passion boo xam ne ni maanaam daf may neex rek ma nekk ci mode mais mode avant tout industrie la te loolu aussi dañ ci bàyyi xel critique yooyu c'est juste parce que dañuy bëgg que ñoom li ñuy produire ñoom ñu am ci satisfaction avant que ñeneen ñi di ci am satisfaction te loolu c'est très important. Euh, au début dañ ne comme daf ci am ñoo xam ne nii vraiment euh, seen jàng demeewul noonu on a voulu euh, alléger un peu thèmes parce que amna na noo koy joxe aussi fay laaj ñuy def ay recherche yo xamné ni ay lecture lay nekk exploitation thème té loolu amna ben niveau bo xamné ni soko amulé pour nga def ko dina jafé man damay wax tout le temps que ni un concours ne doit pas se limiter juste euh, rassembler des des des des gens nga nga nga mettre leen à la disposition wala nga nga nga mettre len à l'épreuve ñu génn ci concours bobu té ñi ci génn amuñu suivi suivi bi moo ëpp importance waxuma xaalis mais suivi bi que ñoom ñu mën leen a suivre ñu mën di participer ci yenn yenn concours yi mën di aussi acquérir d'autres compétences yoo xam ne nii dina leen amal njariñ ci seen biir liggéey man foofu foofu lay xaar concours sañse te foofu lay xaar sama bopp. cadre de finale yi nag douze premiers qualifiés yi dañu leen a ci ñeenti mode muy tenue africaine tenue européenne.

sama mbëggeel lay forgé bu ma la xoolee trop man dama lay gêné bu ma la xool danga may mere xoolatuma man yaa tax nan mu sëy ban dafa am dee sa géej dafa saf dee ku ci sangu dafay bee ku ci seetlu dafay fee roi de l'homme ci boppam moo ko may góor ak noppam bu la yàlla defee ci bindam jigéen dëkk sañse am ñam xool ko traale mënuma laa bañ a xool ëpp nga waar yow de nga toog tool bu ñoo rafet ñi tollu bay mboom du ma liggéey man dama liggéey sama liggéey ndey sama barke baa joué ba pare le palais شیرین ردخور دم خود میکن گریتن شیرین ردخور وای وای wo suñu doxantu bi indi nañu fii ci marché Colobane marché Gambie ci Maïssa et Frères am cër ci sañsa ci réew mi bari xeetu tissu yoo xam ne ku koy wër faw nga wàcc marché Colobane ci sant yàlla butik am cër ci sañ fa ci réew mi deuxième groupe bi nag dinañ leen natt ci ñeenti modèle muy tenue de ville tenue grand théâtre tenue teeru sa jëkkër ak tenue takkusaan revue d'effectif Kër Pape Bey sama atelier mi ngi nekk Yembal en face dispensaire Yembal avant tournal bi ci do dan bi ci premier tour bi jangal na ci lu bari ndax euh, xamal nañ ma luma xamul won aduna lo dugg rek te amul critique rek yow jappal na lolu baxul critique yoy dama dama jangalat lu bari bari na ñamal tuuti rek ndax euh, dañ ne ngonal te jek deug neexul bu bu ngon jotee rek warna mëna xamne ngon jotna ndax euh, ngonal yamul ci da ngay solo pour ngon mais nit bari nit bu jige pour set nit ngona tax da nga wara def bax da nga wara solo rafet def dalu bax def musor wa man dama bëgg tamit nak jeb bi musoru waaw ñun ay sénégalais lañ waaw dañoo wara sa buñ duggé rek ci leen dañoo wara suñu ci luñ doon da ci wara feñ man mom man papé yi taxuna ba deugar ku mëna paré parél man paré na té man xamna né ragaluma fi ma jëm man xamna ni fima jëm ragaluma ko te inshallah allah indi nam dina ko indi fii yëmbal. wa senegal Sénégal alaykum ñi sétan ñep ma ngi tuddu Cheikh Diakhoumpa ñu gën ma xam ci Boy euh ma ngi dëkk Rufisque quartier Jorge euh premier tour bi lima ci jang euh, moy ne ñun ñu woon avant may bok concours sañse ak bima ma bokkee concours sañse ba qualifier quart de finale samay gis-gis ci ñaw wute na torop ndax tax na ma ma éviter lu bari ci ñaw gital coupe ak couture ak finition yéré bi so xolé su wéso lima def ci yéré bi mu xajamal ko euh, yéré bi coupe la jiital ak couture ta yéré bi non kasse sans dara nga def say accessoire rek nga génn fo dem dañ lay dañ lay bàyyi xel gis nga quart de bi limay exposé ko daggé ciseau du ko ñëwé pousso jaasi rek la yor man la Kumba sama atelier mi ngi tuddu Kër Jongama may nek fi ci RIBIS bi concours sañse moom li ma si jàng na ndax dina tax ñu xam ñu dina tax tam ñu xam li ñu liggéey ba paré tamit ay ndariñ kessa dal mo ci nek modèle yi mom yépp togg nañ ko ba paré di ñaan yalla yalla yobul sék seeg rek ci barke Serigne Fall dama ko defal grand boubou 217 ma defal ko vert ñawé ko couleur bazin bi génn ci touti marron xam nga couleur mom ñu bëri bëgguñu multicolore comme ni ma ko waxé won sax ki day choisir li ki choisir lé amna ño xam dañu bëgg couleur bu discret loolu motax ma def ko vert couleur couleur bazin bi génné ko touti marron lal sama estrade defal ko fleur yu rafet. man ngi tudd Pape ñu xamal ma ci slide Store euh, son place muy nekk fi Talu bes étoile ku nga li ma ci jang bari na lool parce que lepp tout temps ma kay sétane maa ngi question yi question bi ñu amone importance moy liggéey bu set. liggéey bu valoriser liggéey boo xam ne képp koo gis nañu jox gëdd parce que ñaw da war a génne coupe ñaw bi génne euh, forme ñaw bi bu baax ak képp ku gis ñaw bi xam ne ñaw bi de euh, jaar na yoon quoi parce que garniture moom gaa rafet na ci ci yére waaye nga valoriser ñaw bi simplement coupe bi ndax keneen ko gis bu gisee ñaw bi dina kontaan man lu ma gën a neex ci ñaw mooy finition yére parce que parce am na yére yoo xam ne mënu dublu lépp Ya, am yére yoo xam ne passage da nga koy ñëw mën a dublu lépp soo ko ñëwee bàyyi ko si biir bi di ko borom sol mi ko sens génn ci robe am classe robe boo xam ne képp koo gis robe am classe la koo gis xam ne kii styliste cukup ko ñëw ci ko bu jaar yoon parce que ñaw bi boo ko boo ko gisee rek di nga xam ne bi dafa am këb rek di nga gis kub bi ngi sama atelier buso Couture maa ngi fii nii Canada en face camion foofu la sama atelier nekk téer yi nga xamante ne ni kenn xam leen woon concours sañse da koy génnee te ba pare day tax téer yi di gën a góorlu ma ci gis moom man moom kontaan naa ci bu baax ndaxte ñu bëri xamee nañ ma ci di ma ci woo di ñëw ma leen di ñawal et tout concours sañse moom am na am na solo torop non quart de finale bi moom du yomb moom lépp luñ ci wax pare naa pour tout coupe dinaa coupe modèle yu amul fenn créativité bi tamit même chose modèle bi moom model bu bu simple la te rafet euh, tissu bi tissu bi dafa ki paillette la paillette bu noir et blanc bu tak nga xamanteni ni ding ci mën dem grand théâtre di nga mën dem ding ci ko sol dem tamit réception Model bi maa ngi ko créé robe bu rafet la ding ko mën sol dem grand théâtre ding ko mën sol dem gine ding ko mën sol dem réception boo ko gisee di ngeen Mandang man nag do ngi kerja. Babacar kon fuma tok rek dina ko man xaas téer lañ ma ngénte ñu gën ma xamé soxor ci su daanaka ba ma ci duggé son concours santé ba tay premier tour bi jot ay appel yu bari jang na ci mode avancé nak fi Sénégal jang na ci tamit concours santé dinañ ci jëlé expérience parce que amna yu bari dañ ko doon baye mais dañ ñu fi critiquer day tax ñu gën ko baye xel ndaw boo nangoo déglu buñ lay critiquer day lay gëna yokk parce que nit bu lay jey nan la baax na baax na doo avancé mais à chaque fois bu nan la li baaxul li baaxul day tax nga gëna gogor pour mëna a dem si kanam man rafetlu na ko trop ngay liggéey ñu lay critiquer model bi waaw mën naa ko commenter parce que nekk na model bu ma neex tamit nekk na model bu ma neex nekk 217 nekk lu métti si ñaw parce que man bugguma ay garniture yu bëri te bugguma ay per yu bëri incha model modèle moom nekk na lu mu mën a commenté man la Baba fay Faye xadi Couture. waaw nekk M3 Kër Massar unité 17. premier tour bi jàng naa ci lu xaw a bari nag waaw ndax am na yu ma si jàng lu bari euh, comme man bu ma siy dugg ah, foog ma woon ne dina demee noonu quoi. man moom même bu ma qualifié wul woon sax man première kii bi publicité ñu gis nii rek jour bi ma koy def man après dafa dem sax ba daf ma daf ma dépassé man ndax sama téléphone dama recevoir ay appel ba mu mujj a fay. xam naa ne moom métier bi dëgg la nag jàng moom mënoo jàng lépp ba lépp moo am na si yàlla may quoi. comme comme man li ma gën a jàng muy simple bi waaw man atelier bi ma jàngee métier atelier ma jaar yëpp sax loolu laa simple laa ko gën a jàng muy comme wàllu ay liggéey vax ak ay liggéey choix ak affaire yooyu waaw moo tax tey ma bëgg leen présenter benn modèle vax waaw. man nag couturière laa rek damay damay jàng ñëw fi nga mën a jaaree pour gëm sa bopp ba pare fi nga mën a jaaree pour am fit te damay ñaan yàlla jël final bi rek su boobaa moom foog naa ne li mu doon suñu borom li ma ko doon ñaan yëpp mun naa ne daf ma koy may parce que. loolu mën na la lancer fu nekk boo ñëwoon ni da ngay xool loo xam ne moo ko jàpp taille haute rek laa ko ñëwoon coupé à la taille après monté ba ci jaune bi monté waat évasé bu ndaw defal ko ay manche éléphant. man la Amadou Diop Da Fashion maa ñëw fii di waxtaan ak yéen mm, en tant que styliste couturier créateur bu di borom marque Da Fashion concours bu ñu ko waxee maanaam euh, dafa am ay charte

c'est liggéey méngoo ak attente bi nga xamantene ne mooy critères yi ñuy pour concours bi. couturier il se doit de créer la tendance li nga xamantene mo mu nekk à l'actualité waratul ñëw xol fi li nga xamantene ne nekk na fa paré mu ko exploiter te comme actuellement Sénégal dañu jël trop de de de de strass trop de brillant trop de garniture ñom nak warul bok ci ñom ñu ñu top tendance bobu non ñom dañu wara a fenen feneen mom lañuy xaar.

de les accompagner duñ leen bàyyi dañ leen accompagner par rapport à nos savoirs par rapport à nos connaissances bu dee mënuñ leen taxawu dañ leen boole ñu leen taxawu bu ñu bu ñu leen mënul taxaw tam wan leen yoon parce que loolu tam euh, mooy suñu devoir ñun en tant que juridique dañ leen di ñëw rek parce que suivi dafa am dafa war a am te yooyu tamit bëri na yoo xamante ne ñu ngi koy waxtaane par rapport équipe bi nga xamante de def production bi pour qu'après ñu mën a def suivi bu bien même ñi nga xamante ne euh, gagné wuñ ci concours bi duñ leen bàyyi noonu parce que euh, yàq lay doon quoi. deuxième tour bi dina am lu bees créateurs yi dañuy ñëw ci plateau bi défilé wane seen bopp wane seen mënin ni ko Pama defee euh, fee ci Padoa. xale bu xonk bi ma doon dox. di ko tànc ci yëpp dindoo ma def tànk fu sori am xaati même gàncax gi mel ni rax. Nyakli di fecc mbalax timis gi sama kanam ak téeméer lanam lëndëm ma gis benn lampe buy sama fit bi di màkk sama karaw taxaw ma tiit ba naa daw ma dégg baatu jigéen di woy ñoom ñu ngi naan borom xol bu rafet joxe bakkanam pour dëkkam borom pexe bu ñaaw moy lekk dëkkam jox Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp jàmm àjjana man la lingeer baat yéeri jàmbaaru jigéen nu waalo jigéen di wéy ñoom ñu ngi borom xol bu rafet moo joxe bakkanam pour borom pexe bu ñaaw mooy lekk dëkk jox jigéen ñi mooy taxaw dëkk ak marché Zinc ñooy lingeeru marché yi ku am xew di ko waajal fii ci Ndakaaru saxel dem ci ñaari bërëb yooyu marché HLM la ñu nekk di waajal troisième groupe bi ñooñu dañ leen beral loxo ndaxte ci brodé ak wax lañu nar a liggéey am na ci ay modèles yu taaru di dëggal nag la Olof Njaay waxoon cin bu naree neex su baxee xeeñ reportage maa ngi tudd Petit Lam ñu gën maa xam ci ngi nekk fii Escapé Bam premier tour bi li ci jàng bëri na lu mu yokk ci man mooy jom que euh, maa ngi def loo xam ne nit ñi bëgg nañ ko te nit ñi ñoo am na ñu koy apprécier loolu rek ça rassure te tamit daf may gën a yokk jom quoi modèle avant goût la avant goula la je taille basse am jupe euh, euh, muy model bu rafet bu nice bu bu classe classique quoi amul mu en plus vax voilà mais mu li nga avant euh, comme ni ko rek ñamal ñamali la quoi nit ku luy nelaw ci yow ñun luy luy luy luy nelaw ci Technopole atelier Technopole mu ngi tudd Sonia Boulama Couture. quart de finale bi ñu koy waajalee mooy euh, que yi dañuy ñëw ni ñu liggéey ci VAX donc VAX bu ñu nee ñu liggéey ci loolu dafay laaj concentration xam nga nga nga xam ci li ngay liggéey parce que VAX boo xoolee mën nga ni mën na ànd ak euh, til mën nga ni mën na àndal bazin mën na ni mën na àndal brodé parce que mën na ànd mën nga xool ni mën na ànd ak lu nekk. ñu ngi préparé ni mu waree li li mu laaj daal ñu jox ko ko parce que concours la ñu wax waaw comme concours la wax donc dañu war a euh, di xalaat waaw bu ñu tëddee ñu ciy xalaat di gën liggéey daal parce que émission bi man dama gëm naa ni que ni war naa ko mën a gañe daal. man la Pape borom Daaru Salaam Couture soxor Sido nekk Géejawaay. en face boulangerie Baye Bass école 16. jour bi ma génnee jour bi sama image génnee ba sama parti bi daw ci lendemain bi am na koo xam ni musuma ko xam Tivaouane Peulh la dëkk xaw ma Kër Massar dafa gàdd mbuusu ñaw xewam ci ci lendemain bi indi ko ba sama atelier pour ma ñawal ko xew boobu déjà loolu rek yokkute la te concours bi nii dina tax téer yi gën a xam finition daal ndax ay la ak xam ñaw ñëw double couture rek bàyyi 3 centimètres ci réserve bi ci biir rek loolu yëpp ñun dañ ko doon fooyee mais concours bi muy man muy keneen ku ci bëgg a jël pay wala ku ci bëgg a jàll li ñu lay wax di nga ko appliqué. jël vaccin jël vaccin dama waaw vaccin dama ci jàng ñaw vaccin dama ci def lu ne vaccin dara mënu ci jaaxal dama ci def lu ne dama ci jàng ñaw dama dam yee dama bie coton dama valant dama dama def lu ne ci vaccin amul lu mu mën a jaaxal ci vaccin. yàlla xam ne ni ban ma boolee ndax man dañ da ngay choisir groupe borodé wala vaccin man maa taamu vaccin kenn boole wu ma ci vaccin xale laa 93 ans li ne ci man dama koy génne. maa ngi tudd Vieux Ndiaye dëkk Thiaroye sama atelier nekk Tali Karo bi ci côté jumaa ji première tour bi am nañ ci jàngat gu rëy rëy sax parce que looy bokk première fois doo ci am expérience. ma ci séntu mooy dëgg la gañe bi neex na loolu loolu waaye daal maa ngi. maa ngi ci bëgg daal loo xam ne vraiment day doon loo xam ne ku seetaan modèle yi rek da leen di neex te en plus concours Santhia day doon loo xam ne du yem fii rek modèle bi maa ngi jël borode boole koog si te si moom xam nañ ni moom ñëpp ñëpp a koy utiliser du waa Sénégal doogu koy Afrique mun naa ne Afrique ñëpp a koy utiliser moo tax ma xalaat pantissu ak borode def ko modèle rek modèle bu simple nii rek ah. modèle boo xam ne daal avant goût la daal di ko may avant goût concours sañse la ñu wax concours sañse wartu mun a yomb li olof Njaay di wax rek xam-xam du doy quoi te képp kuy doyloo sa xam-xam te laajoo ñi la gën a xam doo tàggee yoo xam ne mooy loolu man moom wax dëgg fa yàlla jury yi amul dara lu ma leen di wax parce que ñoom li ñuy def ñoom peut-être ñoom ñoom ñoo ñu féete kaw ñoom ñoo ñuy wax nañu ah lii ngeen di def lii baax na ci lii baaxu ci waaw modèle bu bees sàq la lii moom gisagoo ko fenn yaa ngi dégg bañ naa ko bu nekkul stratégie yi ñuy tapp lii strass piqué yi la jupe la xam nga ak benn eau boo xamante ne eau bi ci kanam bi taybaas la si ginnaaw bi xam nga ñu def ci ay affaire rek yaa ma gën a xam après di ngeen ko gis ko maa ngi des mbéy maa ngi dëkk yëmbal sama leen mu ngi nekk ci route de Gaulle bi en face arrêt Fallou Gueye. ñun tey rek benn lañu gars ku nekk doon na génn si xam-xam jàng naa ci ni vraiment ñaw war na si nii war na set te coupe am na solo. am na sama client yoo xam ne ni. bon xam naa sori woon nañ géej nañ ma dégg mais bu ñu ma gisee ci tali bi vraiment ñëwaat nañ ma leen di liggéeyal am ñoo xam ne tamit ci boobu laal ci foofu lañ ma xamee ñoo ma leen di liggéeyal vraiment premier tour bi am na lu ma apporté bu baax a baax bu neexee yàlla lépp li nekk sama kéemtalaay kàttan dinaa ko def ba am ci ndam daal ma ci yàlla jox na ma xam boo noonu la nee naa sóoraal naa ko bu baax a baax waaw modèle bi vax la ak brodé ma jël vax bi dagg ko jup mu dem ba ci suuf ma jël brodé pàcc ko ci suuf jël eau bi def ko brodé parce ko vax ak brodé jël benn babet teg ci kaw ci kaw def ko brodé def ko vax teg ci kaw brodé. man la Birahim Niang tudd ñu may woowee Badié Couture maa ngi dëkk Pikine ma atelier mi ngi nekk Gotaas concours bi maanaam li ma si jàng gis naa ni euh, professionnel la te xam-xam tamit génn na si waaw mais gis naa ni tamit lu jaar yoon la ndax ñi ngi wone ay. faute yoo xamante ni téyeer yi ñu ngi koy def lu ma ciy xaar moom mooy maanaam lu ma si gën a neex maanaam lu ma ciy xaar mooy wan sénégalais yi maay kan ak wan leen sama xam-xam si ñaw fu mu fu mu tool peut-être bi ñu présenté benn robe lañ ko def robe taille maam lañ ko def ah ñu def ko comme ko taille maam def ko simple bi ñu génnee defal ñawee ko pakistanais ñawal ko ñaw bu rafet def ko ak sooy lañ ko ñëwee bu ñu paree jël esterase esterase ko si noonu daal lañ ko liggéeyee. ñu ngi may ñu ngi ma gën a xamee si Mor mais clients yi ñu ngi may wax Mor Tagate. vraiment concours bi am na solo daal am na solo bu baax a baax si jeune talent tailleur yi waaw parce que dina leen jàppale wala seen liggéey. man moom li may li may wàññi waaw bu soobee yàlla parce que xam naa xam naa kii yi fa nekk nu mu tuddee xam naa experts yi fa nekk. donc maa ngi préparé bu baax a baax di waajal. waaw tissu bi nii dama jënd sama dentelle waaw coupe ko robe tout droit waaw coupe daal di créer samay manches yu rafet teg si def un peu de perlage tout du perlage pour xoromal ko rek comme niñ koy waxee dagate waaw ñu koy dagate. concours <laughs> sañse wax dëgg yàlla fi mu nekk nii moom xam nga li ma si parce que wër na àdduna. waaw sama client yi dañ may woo fu ne dañ ko seetaan waaw di ma woo fu nekk comme wër na àdduna daal du yomb mom.

dal koy xawa lal ko tuuti traditionnel et moderne xaw ko xamantene brodé dafuma ko ñaw bo xamantene buy encombré la mom nima gis ni fat ki ne sol ko dama fasiyene defal ko ci lu rafet lo xamantene dina ko meuna a du ci du ci sentir gêné yére bu xumbul trop dama ko defal coupe bu rafet bu simple lek bo xamantene dina meuna xëy dina meuna dem petite petite cérémonie yi dina meuna dem fep fu adéquat kon xaar len li sagu ci yow bu baax ta xamné day ñëw ta xam ngeen ne wo ngeen lébu nek ci lakum jën ndaw sërërëri gi dara du day Mawla Ngouda Diena Diama Couture nekk fii càmm gën si Kaw Mbaaw te li maam jaara gis naa li ñuy critiqué même ñun bu ñu jàllu sax fekk am na ñeneen ñu jàllu sax ñun bu ñu defee yenn erreur yooyu ñun dinañ dinañ jox expérience pour ñu bañ faa jaar. du yomb moom di nga gis lu garaaw lépp lu ñu defoon benn dinañ ko def dix wala quinze yokk ko dañ def la maximum moom waaw ko jël au sérieux waaw ndax affaire ay caaxaande waaw dinañ ko jël di ko jël lu garaaw ngay gis nag. waaw modèle bi ma leen di présenté nii Getzner la Getzner bu rouge. ànd ak jipir bu bees am ay finition yu rouge si biir quoi ñu dawal ko 217 devant bi ak derrière bi quoi def ko taybaas waaw. maa ngi tudd euh, Boubacar Diop ñu may woowee Bouba Fashion euh, sunu atelier nag mu ngi nekk Nord Foire Apecsy 2. premier tour bi jàng naa si lu ba euh, ba ari quoi parce que dafa gën a yokk sama niveau ñaw. jàngee naa ci lu baree ba bari am naa ci tamit euh, e-, expérience tamit xam nga. Euh, compétition bi li ma ciy xaar euh, ba bari na trop quoi incha allah na bëgg na yàlla daan may appale ak sama liggéey ma jël affaire bi tamit quoi loolu kese fi toll nii moom laa bëgg quoi. robe bi ma war a présenter quoi dama jël wax ak peinture quoi xam nga ma daal koy def robe bu rafet. réussi samay euh, euh, affaire xam nga exactement ma après après daal incha allah euh, di di nga gis quoi. man nag sama moromu téere laay jëkk a waxal ku xam Bouba Fashion xam ne moom du may dara waaw te incha allah dinaa ñëw dal si seen kaw quoi. Mtima sama marque noonu la tudd man sama vrai tour Maguette la. mon surnom di Tima ma ba légui la ma sama yaay ak ses et autres di ma Maguette Tima euh, et depuis euh, Turbo bu mo Maguette Tima Maguette Tima di juste ni di Tima voilà maintenant sama marque sama ligne de vêtements M Tima ko en tant que créateur membre du jury euh, am am nañ ay surprise yu bari ak ay euh, ay remarques yu yu euh, vis-à-vis de leur créativité ak œil bi am sur leurs vêtements donc fi mu tout ça comme def nañ première tour bi ba jël groupe bi en quart de finale nous objectif actuellement c'est d'essayer de de tout faire pour que euh, groupe bi nous retenir nous avons am vision de la mode que c'est une création et à partir de maintenant commencer évoluer évoluer en comment évoluer regard aux création bi évoluer regard aux recherche des matières bi évoluer euh, regard au choix euh, des matières

Nous, en tant que créateur personnellement nous ci nekk nga évolution ba avons remarqué sax nit ñi ça remarquer euh, lors des autres euh, podiums à venir parce que film Tony, on peut dire que là, ça va être des professionnels qui vont rentrer en jeu. Parce que nous, en tant que jury, nous sommes dans un premier temps dañ leen bàyyi woon ku ci nekk libre cours à ta créativité nga dem nga xol nga créer lula la mom nga sentir nga ñeu présenter ñu ko en fonction de ça ñu noter len ba pare mais maintenant ñun nak ñoo leen tënk ñu ngi teunk tënk ci ay points yu bari dafa am ay groupe yu nga xamante ne dañ leen laaj ñu def dañ len laaj ñu defal ñu li am ay groupe yu nga xamante ne dañ leen laaj ñu defal ñu lenen donc ku ci nek sa dans un premier temps ñu ngi lay jàngal nga respecté nga respecté euh, maanaam euh, liñ lay jox. di len gëna ñaax encore wax nañ len ko la dernière fois ñu len koy waxat euh, bëgg nañ actuellement fi de finale surprendre surprendre nous revue euh, garniture inspiration inspiration en fait en toi en toi surprendre Sénégal surprendre sa surprendre Sénégal One tu peux partir de rien et faire quelque chose de wow d'extraordinaire

les nids, vraiment ceci cela l'on non dañ ko éviter baas tay maam bëri mbubu nii jinne jigéen ñi la yàlla taal ndax bëccëg la ndar waaye bu guddee ñu leer nañ taaru ba kaaru sañse ba mu baax dox dox bu ndaw yi

Moi, c'est Emmanuel Jordan Adovi. Emma Steel, c'est toute une équipe, c'est une marque de vêtements. J'adore le pain. Je trouve que c'est un signe d'africanité et bien modernisé. C'est plutôt quelque chose qui se porte très très bien. Et personnellement, j'ai lancé la marque à mon image. C'est pour ça que j'ai parlé d'Emma Still, parce que j'aime bien être euh, unique ou ne pas être stéréotypée dans ce que je fais ou ce que je porte. Fière d'être africaine, africaine euh, que je revendique. Et la passion de l'africanité, parce que l'Afrique est le continent du futur et qu'il y a tellement de choses à faire. Et porter le pain, quand vous allez à l'étranger ou dans le monde, quand vous mettez le wax, on sait automatiquement d'où vous venez. Vous n'avez même pas besoin de dire je suis africain. <laughs> La mode à Dakar, c'est toute une histoire parce qu'il y a tellement de créativité, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. Et la génération montante, elle nous, vraiment, elle nous talonne de très très près. Hein. et on est obligé de créer, de vite créer, <laughs> parce qu'on voit de cette tenue, on se dit waouh, le futur est garanti. je pense que l'émission est une très très bonne initiative parce que euh, c'est bien de se faire connaître. On dit je communique dont je suis. Et sur ce, ces jeunes couturiers, ils ont tellement de talent, ils ont besoin d'une vitrine. Mais Concours Sensei aussi, que ce soit les anciens en griffes, on a toujours besoin de communiquer. Beaucoup de sacrifices parce que tous ceux qui sont dans ce domaine vous diront que c'est un domaine difficile. On n'a plus de vie sociale, on sacrifie la famille, on a un rythme assez soutenu, mais c'est que du bonheur parce qu'on rencontre beaucoup, beaucoup de gens, on noue des amitiés, et on sait que rien n'est facile nulle part. Déjà, je félicite ceux qui sont arrivés au quart de finale parce que le championnat, il est très dur. Et ils ont un excellent jury, des créateurs que je connais personnellement et que j'admire énormément et dont j'ai du plaisir à porter les vêtements. Donc ils n'ont qu'à se dire que c'est un jeu, un concours comme un autre et ce sera la chance au plus méritant. Et surtout de ne rien lâcher. <laughs> Et je vous remercie d'être venu me voir. C'est toujours un plaisir un honneur. Et j'encourage euh, les gens à vivre leurs rêves. Parce que quand on démarre un rêve, c'est le seul scénario qui est entièrement gratuit. Et même si personne n'y croit, euh, dites-vous que c'est comme quand on tombe enceinte pour les femmes. On ne sait pas ce qu'on va accoucher, mais on y croit, on bichonne et à la naissance, on n'abandonne pas son bébé. <laughs> client yu ñëw naan créer ma bëriwul ana magazine yi wan ma ma xool nga joxe mais ñooñu noonu ngeen di copier ñooñu dañoo jàng ñooñu dañoo diplômé ñooñu defuñu comme yéen te pourtant yéen yéen a ngi jéem di def seeni modèle di ko defal ay nit ñu koy sol di dem di dikk di leen si fay donc ñooñu ëppale wuñu leen dara li si des nag si yéen la nekk yéen a koy moo tax nag compétition bi mu bugg yéen di leen pousser pour que li nga xamante ni pour yéen ngeen ne xamoo leen ko ay ndongo daal leen te mu ngi nelaw ci yéen ñu yee ko affaire bi c'est juste ça yéen tailleur yi yéen a moom xibaar bi yéen ñawkat yi yéen a moom xibaar bi Cham et frère indi na len machine bi ngeen doon xalaat dem jëndi extérieur déedéet mi ngi Sénégal ci et frère bépp modèle machine à coudre professionnel qualité supérieure nga raw say mas am machine Bernina 217 am machine Corneli A3 machine gros fil Trésur machine piqueuse MPEC machine sulfureuse Rimoldi machine ordinateur ba am capacité ou 250 motifs intégrés machine pakistanaise machine spécialiste boutonnerie machine poste bouton Tcham et frère bépp machine bobeg pour Nyaou Amnenko. nañ machine pour gros fil wala 217 amnenko. UBS, ko yu adunabi yu mujjee génn ci et frère ci 33 868 99 54 wala 77 431 32 78 wala 77 653 26 52 Yoné ñu mail ci établissement tcham wala nga xool machine yépp ci suñu site internet www.thiamefrères.com ñi ngi nekk ci numéro 6 jano ak collège Hyacinthe Tiandou ca Grand Yoff fii ci Ndakaaru bépp machine boo soxla yéen ñawkat yi seen coono jëndi machine bitim réew jeex na lépp luy machine fii la fekk baax